alhamdulilahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala sayyidil mursaliin nabiyyinaa muhammadin wa ala aalihi wa asxaabihi ajmaciin amma baad mbokki jullit yi ñu ngi leen di dénk di dénk sunu bopp ragal yàlla ak topp ko te bàyyi ay tereem ca sunu xutba bale weesu waxtaane woon nañ sabab yi nga xam ne mooy tax nit ki ñi màbb jëfam gannaaw boo xamee ne jëf na ko bañ nangu ko ba noppi mu amaat nag yeneeni sabab yoo xam ne day tax su jëfee jëf ji moom duñ ko nangu yooyu mooy suñ xutba tey yooyu nag jëf yu xaw a takku la ba ca jëkk moo di ñàkk lislaam ñàkk lislaam nag mën naa firi kéefër maanaam ki lànk duggul ca lislaam wala ki ci dugg ba noppi di bokkaale ñooñu kenn amu ci lislaam ñooñu borom bi tabaraka wa taala du leen nangul jëf suñ borom tabaraka wa taala nee na koo xam ne dangay ngay jëf-jëf te jaare ko ci lislaam ja yàlla nangu nee na kooka di su ko nangul dara te bu ëllëgee day perte wa man yabtaxi gayra al islaami diinan falan yuqbala minu kenn du ko nangul benn jëf wa huwa fi l min alxaasirin bu àllaaxira ñëwee day perte borom bi tabaraka wa taala waxaat ci beneen aaya mu ne ñi nga xam ne ay yéefar lañ maanaam dañoo lànk bañ a dugg ci diine ji wala ñu dugg ci ba noppi di bokkaale wa maata wahum kuffaar nee na faatu yóbbaale loola falan yuqbala min ahadihim milu l ardi kenn ci ñoom su moomoon li nekk ci suuf lépp maanaam àdduna ak li ci biiram lépp soppiku or mu moom ko sarxe ko boroom bi tabaraka wa taala nee na du ko nangul nee na ñooña moom seen wàll mooy mbugal rek te amuñu kenn ku leen mën a taxaw nag wala nga mën leen a dimbali bañ mucc ci loolu kon la chaque ne jàpp ci diine ji ak jubal ko ak sax ci tawxiit mooy tax ñu nangu jëf waxaat na beneen aaya bu ko nuru muy fi borom bi tabaraka wa taala waxee ni ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla suñ moomoon suuf ak li ci biiram ba noppi amaat leneen lu nag toll nag tegaat ko ca law anna lahum ma fi l ardi jamian wa mislahu maahu li yaftaduu bihi ngir ñi jot seen bopp ba mën a mucc ci sawara nee na su boobaa kenn du ko nangu ci ñoom ñooñu seenu cër mooy mbugal kon yàlla na yàlla musal ci loolu ñaareelu mbir ma mooy ñàkk ak ragal yàlla ragal yàlla mooy jikko bi nekk ci biir nit ki di dox digganteem ak def lu bon ak wax ko ak fas ko doonte dafa wéet donte dafa wéet kooku nag ku ko amatut kooku mën na laa xañ ñu nangul la say jaamu yàlla donte jaamu yàlla bari moo tax borom bi tabaraka wa taala bi mu nettalee ñaari doomi aadama ya muy haabil ak qaabil kenn ku ci nekk danga rendi dara sarxe ko ngir yàlla haabil ñu nangul ko ak jaamu yàlla am bindal ko ko yëkkati ko xaabil ñu bañ koo nangul ak jaamu yàllaam bi loola amee nag mbir ma leer leen nàññ ka ca des mer ne ko kon danaa la rey xaabil ne ko kon dana la rey mu ne ko li tax nanguluñ la mooy dangaa ragalut yàlla moo tax mu ne ko innama yataqabbalu llahu min almuttaqin jëf ji nga xam ne nit ki da ko def ngir yàllay yi kese ak ragal yàlla nekk ci biiram loolu mooy tax yàlla nangul ko ginnaaw yow meloo nag loolu moo tax yàlla nangulu la loolee moo tax haabil daal di qaabil daal di rey doomi ndeyam jooje muy muy haabil muy rey bi jëkk deret ji jëkk a tuuru ci kaw suuf te fekk doomu aadama moo ko tuur ñetteel ba mooy ak kàccoor koo xam ne dafay lànk ndigali yàlla yi mu teg ko fële wala mu lànk yi yàlla tere mu di ko jëfe loolu la ñuy tudde ki koy def moom la ñuy tudde faasiq kooku nag borom bi tabaraka wa taala du ko nangul ay jëfam kon nag loolu lu mat a bàyyi xel la bu di jullit bi kem kàttanam dafa war a jëfe ndigal yi waaye ter yi moom da leen a war a bàyyi waaye su lànkee nuur ca nag di ko def ba noppi tuubul kooku moom diisu ko nangul jaamu yàlla am ya ca des ya muy def moo tax borom bi tabaraka wa taala daf ne qul anfiqu tawan aw karha sooy boo ngeen dépensé lu ngeen mën a dépensé lan yutaqabala minkum maanaam ña muy waxal daf ne leen kenn du leen nangul lu tax mu ne innakum kuntum xawman fasiqin <coughs> dëgg na nekkoon ay xaccoor ay moykati yàlla moo tax borom bi tabaraka wa taala nangulu leen ba ca tegu <coughs> moo di wërsëg woo xam ne dafa léwut wërsëg woo xam ne nit ko fa mu koy fàggoo léwul bunt yi nit ñuy fàggoo wërsëg yu léwut nag bari na fëkk alali jàmbur a nga ca ak sàcc ko moo xam sàcc gu fés la wala gu nëbbu moo xam sàcc gu ñàkk sutura la wala gu am sutura waaye jépp alal joo xam ne danga nga koo fab te moomoo ko day tàbbi ci biir lekk loo xam ne lu léwut la abu hurayra dafa jëli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne képp ku saraxe donte li nga joxe ci sarax dafa toll ne benn tàndarma benn doomu tàndarma waaye nee na min kasbin tayyib te dafa doon lu lew mu teg ci moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wala yaqbalu llahu illa tayyib yàlla du nangu lu loo xam ne lu lew la kon ki def lu lew looli yi lu mu tuuti tuuti mu def ko fi sabilillah nee na wa inna allaha yataqabbaluha bi yaminihi borom bi tabaraka wa taala moo koy nangul boppam ci loxol nday jooram nee na nag di ko yar sarax bu tuuti boobee tolloon népp tàndarma ne borom bi tabaraka wa taala daf koy jël di ko yar maanaam wutal ko ëpp wut di ko xont di ko jox muy lekk di naan di màgg nee na ni kenn ci yéen di yare aw fasam maanaam ni ngay yore aw mol maanaam fas wu tuuti di ko yar di ko jox muy lekk ka naan ba màgg nee na borom bi tabaraka wa taala sa tàndarma bu tuuti bu lew boobi noonu la koy jële di ko yar di ko yar xatta takoona mislal jabal nee ba day mujj màgg ba toll ne montagne nga xam ne nit ñi buñ koy xool dañuy téel kon nag lew lu am solo la ci wërsëg lu am solo la ci ki nga xam ne day dépensé fi sabilillah ndax li nga xam ne dafa lewut ñaari musiba lay làmboo mooy su ca dépensé fi sabilillahi duñ ko nangu beneen bi ci des mooy ay ñaanam mag ay jaamu yàllaam mag yooyu yëpp day tënku moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na kenn ci yéen dana tàllal ay loxoom di ñaan naan yaa rab yaa rab waaye kenn du ko dikk kenn du ko nangul mu ne nan lañ koy nangule te fekk la muy lekk dafa xaraam lam sol dafa xaraam fa muy tëdd dafa xaraam kooku nu ko yàlla di nangule kon fàggu lew moom muy nangoo ñaq liggéey lala euh, lew nga di ca lekk di ca joxe fi sabilillahi loolu moom lu jullit bi mënta ñàkk la juróomeel ba moo di sos ci maanaam biddaa juróom benneel ba mooy war kóllëreeg jullit juróom ñaareel ba mooy nit kuy askanoo kudul juróom ne kéema jur te fekk kooku juru ko loolu dañ koo tere ñett yooyu nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boole na ko ci benn xadis bi mu doon waxe ne madina ci boppam xaram la maanaam yàlla moo ko aar kaaraange boppam waaye da caa teg ne képp koo xam ne sos nga biddaa wala nga fat ci sa kër koo xam ne borom biddaa la lu la sos nga biddaa wala nga fat ci sa kër koo xam ne borom biddaa la nee na yàlla rëbb na la ak malaayika yi ak mboolem nit ñu baax ñi mu teg ci ne laa yaqbalu llahu minhu yowma alqiyaamati sarfan wala adla yàlla du ko nangul bu yowma alqiyaam ñëwee du jëf jum jëfe woon di ko jaamu yàlla du dépassé mum dépassé woon ngir yàlla maanaam jaamu yàlla yi julli yaag ya ko nur yépp ginnaaw ci biddaa la tënkoon diineem wala mu fat koo xam ne ci biddaa la nekk sax caag moom te xam ko nee na kooka moom loolu mooy la koy jural borom bi tabaraka wa taala du ko nangule te ay jaamu yàlla am mu ne it këlla jullit dafa doon loo xam ne lu rëy la jullit yi su kenn ci ñoom joxe kenn kóllëre rek kóllëre googa day war jullit ñi ci des ñëpp mu ne nag koo xam ne danga ngaa fecc kóllëre ak jullit accord yoo xam ne yéen a ko signante woon yéen ñaar ba war ko doxal nga war ko nee na kooku it la dal kële dal na la fa alayhi laanatullahi walmalaaikati wannaasi ajmain mbugalum yàlla maanaam rëbbug yàlla ak malaayika yi ak nit ñu baax ñi yooyu yépp dal nañ ci kawam te yàlla du ko nangul jaamu yàlla du ko nangul dépensam fi sabilillah mu teg ca ne koo xam ne itam danga askanoo ñi lay wooye koo xam ne ku dul sa baay la maanaam juru la ba noppi nga siiwal ne mooy sa baay ba ñëpp naan diw sangam mooy doomi diw kooka it nee na rëbbug sunu borom tabaraka wa taala dal na ci kawam ak malaayika yi ak mboolem nit ñu baax ñi te yàlla du ko nangul yowmal xiyaama ak jaamu yàlla du ko nangul itam dépense bu muy def fi sabilillah kon kooku moom itam lu rëy la la ca tegu moom it ñetti mbir la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tudd ko ci benn xadis boo xam ne Abdullah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu taala anhuma moo ko nettali mu ne yonent bi alayhi salaatu wa nee na ñett ngi ñoo xam ne yàlla du leen nangul seenu julli seenu julli du yéeg ci kaw asamaan du weesu sax seeni bopp maanaam amul njariñ ka ci jiitu. nee na mooy koo xam ne dafa nekk yilimaani mbooloo moo xam ne bëgguñu ko doon gii mu doon yilimaan d'accorduñ ci kenn bëggu ko fi kooku nag boroom xam-xam yi wut nañ ci ay tënk nee nañ faaw mbañeel giñ ko bañ diiney tax diiney tax maanaam amaana waa ji dafa matul yilimaan waaye kat su doonee yilimaan ju mat sëkk yilimaan ñu noonoog moom rek ci yeneen yeneeni mbir kooku moom konte wuñ ko ci lislaam mbañeel ga ba ca jëkk diine day tax ñaareel ba ña gën a bari dañ koy bañ mbooloom jàkka ji ña ci ëpp d'accorduñ ci jiite gim leen jiite waaye kat su fekkee ñaari nit ak ñett ca d'accordul waaye ñi ci des ñépp d'accord nañ ci kooku ba tey l'islam considéré wu ko ak mbañeel amut solo ah xanaa boog mbooloom jàkka ja doon ñu néew doon ñetti nit wala ñeenti nit kon su ko ñaar ñi bañee wala ñett ñi su boobaa mu am solo mu benn considération waaye su dul loolu du ko am ba ca des mooy ñi ko bañ faaw ñu doon borom ñu xam diine ña maandu ña doon borom xam-xam waaye su fekkee ña xamul dara wala ña jubut sax far ñoo ko bañ am na ñoo xam ne ñu bañ la loolu ak ak tag aw tagg la ku jubul su la bañee loolu aw tagg la waaye su fekkee nag ña jubul ñoo ko bañ kon su boobaa lay doora doon lu am solo kon ñetti mbir yooyu suñu dajee kon kooku rëbb woo dal na ci kaw imaam jooju maanaam la ëpp ci mbooloo ma te doon ñoo xam ne boroom xam-xam lañ boroom diine lañ doon liñ ko bañee itam doon diine maanaam moom ci boppam benn dafa jubut wala dafa rafetul nu muy jullee ak julleem baaxut loolu moo tax d'accorduñ ca imaam nga su boobaa la loolu di doolu dal ci kawam kon kooku mooy ku jëkk ci rajulun amma qawman wa hum lahu kaarihuun ba ca tegu mu ne wa rajulun salla ala janazatin walam yumar wala walam yuammar nit koo xam ne dafa jiite jullig néew te kenn yebalu ko ci kenn néewu ko demal jiite ko daa ñëw rek fekk nit ñi taxaw mu jekki-jekki taxaw ci seen kanam leen ay ca kooku nee na tàbbi ci ñi nga xam ne borom bi tabaraka wa du leen nangul seen jëf kon nag kooku lu aja teey la néew bi dafa am ay bokk daa am jàkk jëm doon jullee daa am imaam daa am ay nit ñoo xam ne ñoo yore kàddu gi neel tekk bañ ne la kaay dem jiite ko wala moom ci boppam mu dénkaane woon ni diw na ma jiite su ma faatoo su ko defee kooku sañ a jiite waaye mbooloo mi taxaw rek nga waaxu dem seen kanam daal dina bismillah kooku ci liy indil nit ko musiba ci la bokk ba ca tegu mu ne wamraatun daaha zawjuha min al leyli fa abat alayhi ki leen ñetteel nee na mooy jigéen joo xam ne boroom këram da ko woo ca guddi mu lànk kooku moom it nee na bokk na ci ñett ñooñu nga xam ne borom bi tabaraka wa taala du ti seenu julli kon mbir yi mat a bàyyi xel la ba ca tegu buy fukkeel ba ak benn mooy koo xam ne gàddaay war na ko tam man ko ba noppi defu ko ki gàddaay war mooy kan mooy kuy dund ci béréb boo xam ne kéefar a fa nekk goo xam ne ragal na caa tàbbi wala biddaa fa nekk boo xam ne ragal na caa tàbbi wala ay moy nekk yoo xam ne ragal na caa tàbbi kooku war na ci moom mu gàddaay su fekkee nag yooyaa nga fa kéefara nga fa biddaa nga fa moy yàllaa nga fa waaye ragalul ne moom dana ci tàbbi jàpp na ne ak nekkam fa sax lu war a mën a jubbanti ñooña la kem kàttanam kon kooka toog foofu du wàññi dara ci moom day baax sax ndax yiw mën a tasaaroo ci bërëb boo xam ne lëndëm moo fa nekk waaye jamono yoo xam ne ragal na ci diineem ne mën nañ ko yóbbaale ci kéefar wala ci biddaa wala ci mooy yàlla su boobaa daw génn ak diineem dal nay doon lu war ci moom mu des nag ndax mën na ko wala mënu ko su ko mënee nag te defu ko su boobaa la lii yonent bi sallallahu alayhi wa di wax ñëw ci kawam xadis bi daf ne yàlla du nangul ab yéefar wala bokkaalekat boo xam ne dugg na ci lislaam du ko nangul benn jëf aw yu faariqal mushrikin lu dul dafa tàqalikoog yéefar ya wala bokkaalekat ya ilal muslimin dem dëkki fa jullit ña maanaam du ko nangul benn jëf lu dul dafa toxoo foofu dem fële waaye nag ñoo xam ne condition yooyu ñu tudd ci la bokk muy na fekk mu mën a gàddaay na fekk it mu ragal ne diine mën na faa yàqoo waaye su fekkee lenn amut ci yooyu nag su boobaa toog ga doonut lu koy lor gàddaay it nag firiwul ne faaw nit ki day génn frontière génnum réew dem ci meneen mën naa dëkk ci bennu capital musiba yooyu mu am fa njàqare ci diineem mu sempi ku dellu ca dëkkub kaw ba toog fa nekk ci jàmmam wala mu nekk ci benn dëkkub kaw musiba ma nekk fa mu jóge fa dem ci beneen dëkkub kaw boo xam ne loola nekku fa wala mu amuk jaaxle sax ci dëkk yépp mu sempi ku ndànk dem sañcaat beneenub dëkkam nekk fa boo xam ne jàmbi kese fa nekk kon loolu lépp ci biir gàddaay ci lay dugg fukkeel ba ak ñaar mooy ki rey nit te tey ko lislaam ne kooku dañ koo war a rey nga fexe ba reyuñu ko borom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ci xadisu abdullah ibnu abbas wa man qutila amdan fa huwa qawadun képp koo xam ne dañ koo rey te tey ko nee na kooko fayu rek maanaam rey wa man xaala baynahu wa baynahu koo xam ne dox na digganteem ak ñi rey kooka fa alayhi laanatullahi walmalaaikati wannaasi ajmain yàlla rëbb na ko malaaka yi rëbb nañ ko nit ñu baax ñi rëbb nañ ko laa yaqbalu llahu minhu sarfan wala adla yàlla du ko nangul dépenser fi sabilillahi du ko nangul itam ak jaamu yàlla kon géttan boo xam ne borom bi tabaraka wa taala moo ko teg ne ku rey nit te tey ko nañ la rey nga fexe ba loola amut kooko dansé bu mel ni bii yonent bi sallallahu alayhi wa wax moom la am lu mat a la ci ab jullit fukkeel ba ak ñett mooy jigéen ju jëm ci jàkka xeeñoo ay parfum ba kum romb dal lay fitnaal Ubayd Mawla Rahm nee na benn bis dafa am jigéen ju romb Abu Hurayra nee na ngelaw li ñëw xetu parfum yi di ko xeeñu Abu Hurayra ne ko ay jaamu yàlla bi foo jëm mu ne ko ci jàkka ja mu ne ko danga xeeñ parfum mu ne ko waawaaw mu ne ko dellul ca kër ga sangu ji dellu raxas ko ba mu set ndax man kat dégg naa yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa mu ne yàlla du nangul jigéen ak julli jigéen joo xam ne dafa génn jëm ca jàkka ja te fekk ngelaw laa ngay yëkkati parfum yi muy xeeñ li feeg delluwut ca kër ga sangu maanaam raxas ko ba mu set kon loolu itam ci li mat a wattandiku la ndax ci yi indi fitna ci la bokk yee ca tegu moom it ñetti mbir la yoo xam ne bu ci nekk day tee ñu nangu jëf abu nett nettali na ko jële ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ñetta ngi ñoo xam ne yàlla du leen nangul dara al aaq moo ci jiitu mooy koo xam ne day ñaawal di jëme ci ñaari waajuram li ñu tudd birrul nii muy rafetal jëme ci ñaari waajur amu cëb cër lu ñaaw rek la leen di def lu ñaaw rek la leen di wax kon loolu ci liy gàllankoo nit ki ba duñ ko nangul ay jaamu yàlla am ci la bokk jullit bi jaadu na mu fexe ba rafetal digganteem ak ñaari waajuram même buñ dul woon sax ay jullit daa war a rafetal diggante bi moo tax boroom xam-xam yi dañuy wax ne birrul waalidayni firi wut topp ñaari waajur waaye li muy firi mooy rafetal jëme ci ñaari waajur waxuñu topp waaye rafetal rafetal mën naa doon ci jëflente jëflente wax wax ju rafet jëf-jëf ju rafet la nga am nga jël ci jox leen buñ dul woon ay jullit sax lu rafet moom xol boo ko jëmalee bu nekk bëgg na ko su ko defee loola ak jaamu yàlla lay doon ci yow waaye nag waxuñu ne lu la luñ la digal lu nekk nga def ko suñ la digalee lu baax nga def ko waaye suñ la digaloon ak mooy yàlla loolu doo ko topp wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tutihuma su fekkee dañ laa xëcc nag bëgg laa yóbbu ci loo xam ne mooy yàlla nee na bu leen topp ci loolu kon loolu bokkul ak topp ñaari waajur ba ca tegu nee na almannaan ki nga xam ne day joxe ba àggal di ko tiitaru di wax ne diw sàngam maa ko jox su ma ko joxul woon du am kooku nee na ca ñooña la bokk yàlla du ko nangul ak jaamu am ki ci des nee na mooy ku weddi dogalub yàlla al mukadibu bil qadr weddi dogalub yàlla nag firiwul ne nit ki day taxaw ne man ne moom gëmut dogalub yàlla yëmut foofu rek waaye weddi dogalub yàlla léegi léeg nit ki mën na koo dund maanaam nit ki faatu mu jiim koo wutal yeneeni sabab yu bokkul ak dogalub suñu borom tabaraka wa taala am na nit ñoo xam ne ci seen xel jàpp nañ ne nit du jekki-jekki rek faatu noonu faaw am na ngelaw lu ko solu wala faaw jinne wala seytaane wala leneen dugg na ko mu door a faatu pas-pas bu mel noonu nag baaxut ci nit ki dafay gëm dogal yàlla mu gëm ne leen lu nekk borom bi tabaraka wa taala moo koy dogal mu door a am su ko dogalut du mën a am jullit bi gëm loolu mooy noppalu te mooy mucc itam ci jëf yu dul nangu ba ca mujj moo di ab jabarkat ab seetkat ab gisaanekat nit ki ñëw ci moom ba noppi di ko laaj dara ci ay mbiram ne ko seetal ma lii ba xam nangam ci xadisu xafsa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man ataa arraafan ku dikk ci ab gisaanekat fa saalahu an cheyin maanaam mu seetloo ko dara ne ko seetal ma ba xam lii lam tuqbal lahu salaatun arbaina layla dana am ñeen fukki fan yoo xam ne kenn duutu ko nangul ak julli kenn duutu ko nangul ay julleem kooku musiba la ci jullit bi kon yii ngay gis tey ñi di ko foyee kenn ku nekk naan damay dem ci diw mu seetal ma ñu def ba àgg sax ci rajo yeeg télévision yi ñi ci wone ay programme yi ñu tudde seetlu nit ka di téléphone ñi di ko seetal kooku yépp ci musiba yi góob diine yi nit ñi di ko yàq ci la bokk jullit bi na ko wattandiku rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'u al-alim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وأقم الصلاة